man fii man maa lay xajal. waaw looyee wax ko fii maa ngi koy xajal. fii maa ngi koy waaw maa ngi koy dalal waaw kay kon kon kon jéem a def. tegal leen ñii yëpp. ana ñëwul de. waaw booy ngi ci ginnaaw. Ah, Fall am sama micro. man sax feeñu. man sama micro sax feeñu. ayca Fall. ayca ah, eh, gars ah. yi ñoo ngi leen di gërëmaat bu baax a baax ñoo ngi fii ci école. waaw xam naa école bi de. gars yi c'est mbokk yi ñoo ngi leen di gërëm bu baax a baax di leen ziar ñoo ngi fii ci école Mbaye Diouf ba léegi mbokk yi ñu ànd ak sponsor bu mag bi muy Distingo waaye tamit di gërëm Mansour mi nga xamante ni ci biir ànd bi mu ànd ak Distingo jënd na lu tollook euh, euh, ay ay prothèses yu baree baree baree bare gunge Distingo waaye tamit jënd na lépp loo xamante ni ay big la ak li nga xamante ni moom mooy ay gom ay lu ne loo xam ni mën na koo jàppale xale yi waaye tamit gunge ko ci Distingo parce que Mansour yamul rek ci promoteur rek waaye tamit dafa dafay nekk nit koo xam ne nitu social la ndax mu ngi jël alalam di ko def ci école yi waaye tamit moo ngi jël alalam di ko def ci néew du doole yi bu nit defee lu baax nañ ko wax comme ni Siteu mënee social comme ni Siteu tàmmee social moo tax yàlla boole leen ñu ñëw fii ci école mbay Diouf kon mbokk yi dañuy dañuy bàyyi euh, directeur bi mu dalal euh, Mansour dalal ki nga xam si moom mooy Siteu muy doomam di xaritam di lépp. papa ñu ngi asalaamaaleykum ñu ngi ñu ngi lay ñaan. di sant bu baax di sant ku wér di ñaanal yàlla yàlla yàlla vraiment li nga li nga def def nga def nga lu rafet yàlla na yàlla fay yàlla defal la li nga bëgg li nga li nga dëgmal tamit yaa xam li nga ci bëgg yëpp yàlla na la ko yàlla defal defal la ko si jàmm ak salaam ak ci xewal vraiment au nom de l' école de toute l' équipe ñu ngi sant gu wér ndax lii moom nekk na loo xam ne luy luy dimbali parents d'élèves la ndax dès l' ouverture à le tey la tey le 9 dès bu ñu leen ko indilee incha allah ñu war leen ko séddale dina loo xam ne luy jàppale parent yi la ndax parents yëpp nañ ci sant bu baax incha allahu rabi jërëjëf ñu ngi leen sant bu baax ci jamono ji waaw nga xam ne parents yu bari seen loxo jotu seen ginnaaw hmm. di séngoo ànd ak Mansour ànd ak Siteu mi nga xamante ni heure bi def open press hmm. day ñëw fii nga abal ko terrain bi mu def li muy def tey ban yëg-yëg nga am ci li nga xam ne Siteu def na ko waaw lii moom dañ ciy am yëg yëg bu rafet rek di sant sant gu weer rek di ñaan di ko ñaanal rek yàlla tamit lu mu ma mënoon ren rek mu gën ko mun déwén ndax li yëpp c'est Euh, euh, œuvre sociale la œuvre la boo xam ne distingo ak ñoom ñëpp ñoom ñu ngi koy def kon yàlla na leen yàlla fay yàlla defal leen taw tawfeex ba nga xam ne li ñuy bëgg lépp yàlla na leen ko yàlla defal te lépp dañ koy ñaan rek na xam ne di nga jégaloon ndax parce que ñun saa yi ñuy def open presse fii lañ ko defee si ginnaaw école bi mais xale yi dañuy yéeg ci kaw adwaas yi te maanaam rafetul daal si loo xamante ne day indi ay gàllankoor day tax adwaas yi day bëtt loolu yëpp waaw di lay jégalu bu baax waaw ci loolu waaw ah, parce que tamit école bi la ñu am fii la ñu am xanaa dañoo amul fenn rek moo tax ñu ñëw fii waaw di lay jégalu bu baax a baax baax di lay wax ne waaw école bi suñu école la lépp loo xam ne mën nañ ko pour gën si jàpp tamit dinañ ko def incha allah dégg nañ bu baax li nga wax sant mais loo ci mën a ñoo ngi lay jégalu bu baax baax a baax waaw sant tamit Mansour di lay wax Mansour gàcce ngalaama waaw man sama waxi démb rek mooy sama waxi tey man damay sawar trop say affaire damay sawar trop si say affaire waaw kon daal maa ngi lay ñaanal suñu borom kàttanal la dooleel la di lay wax ne man maa ngi sa ginnaaw ànduma yow liggéey kese kese kese ma dama ànd ak yow liggéey ba pare doylu la wóolu la parce que du benn yoon du ñaari yoon waaw kon maa ngi lay ñaanal li nga bëgg waaw suñu borom jàppale la ci rek da nga rafet njortu trop si man nga xam ne man tamit yow lu dul lu lay jëmale si kanam nekkuma si waaw sant ñëpp di gërëm ñëpp waaw bëgg naa ñëpp bëgg journaliste yi. surtout boo amee looy lancé ci xale yi nga xam ne ñoo nekk ci école yi di jàng. Mhm. lan nga leen di wax surtout xale yi nga xam ci ni tey jii dañoo war a jàng pour teral seen i wayjur. Mhm. dañoo war a góorgóorlu ci jàng bi bu baax a baax lan ngay wax xale yi nga xam ne ñoo nekk ci école yi. waaw jàng bi xale yi li ma leen di wax di leen wax ne nañ jàpp rek teewu bàyyi eh. parents yi tamit ñu jàppale leen parent yi ñoo mën a jàppale xale yi ñu mën a jàng bu baax parce que jàng mooy avenir boo déggee ñu naan jàng lu tax mu nekk avenir suba ak jamono ji fu mu toll technologie bi nu mu avancé ni ñi voyage si àdduna bi fu ne kenn du la remplir say dossier yaa koy remplir sa bopp yaa ngi dégg loolu rek dafa jar a jàng bay bëgg a dee tey nga am sa xaalis wal ko contrôler sa banque kan moo la koy defal loolu boo jàngul noo koy mënee kon na xale yi jàng na famille yi tamit parents yi ñu jàppale élèves yi yee topp leen commencement ba fee yee di remercier ñi nga xamante tamit ñooy jàngale xale yi waaw sant daal gërëm daal loolu laa am lu ma si teg waaw jërëjëf jërëjëf ñu ñëw ñu ñëw ci Mansour mi nga xamante ni moom ak Distingo ànd nañ mbokk yi ci liggéey bu mucc ayib waaye moom ak Distingo ànd nañ mu yëkkti ay moyenam yu bari ànd ak séngoo waaye tamit jënd ay bagages yu bari dolli ci mu ne du ma seetaan Distingo kase damay ànd ak Distingo gunge ko ci xale yi nga xam ne dañuy am problème mu bit xale yi nga xam si ne dañuy am ay poroblème mu prothèse parce que bëggul xale yi rek seen i kaye di tilim dañoo bëgg xale yi di sàmm seeni i kaye waaye tamit ak prothèse bi wóor Mansour maa ngi lay bu baax a baax di la nuyoo di la gërëm kàddu gi lan waaw di la fay di nuyu le directeur de l' dégg naa ay doléance am te di ko wax ne incha allah ak Siteu. dinañ xool naka lañ koy jàppalee bu baax ci doléance yi nga wax. ñu mën koo saafara nu mu gën a gaawee. loolu moom ñun ñoo la jox suñu kàddu. lépp nag luñu ci def rek xamal ne du suñu jëmm. jëmm Siteu jii moo tax ñu def ko ndax xam nañu wax dëgg yàlla tolluwaayam ci jàmm gën ak fu mu leen teg donc bu ñu xamee lépp lu mu doon rek après ñu ak moom dinañ ci ànd incha allah ñu góorgóorlu si ba fexe yi nga wax yëpp ñu saafara ko nu mu gën a gaawee incha allahu rabi loolu moom ñun ñoo la jox suñu kàddu di wax ne rek àdduna lii la Siteu au delà mu nekk un lutteur bu may liggéeyal c'est un ami nit la ku ma naw fàll loolu xam nga ci dara vraiment di nit ku nga nit ku baax man li ma gëm moom laay wax mooy gis nga nit da ngay amal njëriñ sa askan dëgg la moom référence ci côté boobu mhm. booy jël tey ci mbër yi ñi nga xamante ni tey ñooy jàppale seen gox. Siteu mhm. bu jëlul pay di des. parce que moom moo ko fi wane. Mhm. moo tax tey jàmm gën ñëpp bëgg ko jàmm gën ñëpp au delà sax de jàmm gën. Mhm. koo ne ñu ne la dafa social. di ci woo di ci lancer appel mbër yëpp ak képp ku sportif. que tey boo nekkee borom tur. nga am tey yenn moyens yu la yàlla dimbale amaana sax amoo ko. mais pépp foo mën a dem tey. pour nit ñi jàppale ay partenaires yoo mën a jàppale pour sa gox mhm. moo xam ci éducation moo xam ci santé moo xam ci leneen ak leneen dem fa ngir sa mhm. bul xalaat rek sa bopp loolu tey nit du xalaatee noonu te moom ci activité citoyenne yooyu noonu dama ko cee fekk mhm. si dëgg ko xam-xam ne ci social lay dox di ko ñaanal jàmm di ko ñaanal salaam di ko ñaanal ñëpp ñu muy àndal vraiment gis nañ dévouement bu ñu am ci mbër mi di ko jàppale guddeeg bëccëg suba ngoon ñoom góor ak kenn xam amuñu kii amuñu noppal amuñu dara kulim da ngay juum vraiment moom di wax ne daal jàmm gën bu koy taxawu benn na ko taxawu diis ndax Siteu foo ko dégg lépp lu mu wax jàmm gën la ci tegal lu mu am da koy yóbbu jàmm gën lu mu am defal ko doomu jàmm gën donc référence modèle la ci lu mu nekk yàlla na ko yàlla taxaw bu baax di remercier ñëpp toute la presse di remercier notre partenaire Distingo di remercier aussi la structure Jàmbaar Production di wax ne innovation ci làmb nekkul rek affaire bëre innovation ci làmb moom mooy fexe ñi lay supporter ñi lay jàppale nan la ñuy gisee sa bopp seen bopp yow ci li ngay def tey moom la si tañoo def fii jàmm gën yaa gën a koo def mais tey à travers la lutte à travers un sponsor wane ne ne tey mbërkat amal na njëriñ goxam di sant ñëpp di gërëm ñëpp incha allah lan ngay wax ci sponsor yeneen sponsor yi nga xam ne ñëwaguñ ci woon